kenn waxul ni kenn du àbb xaalis amul réew bu dul àbb xaalis ñëpp ay àbb xaalis mais xaalis bi ñuy àbb fi ñu koy dugal loolu mooy problème bi lan lay jariñ loolu mooy problème bi est-ce que day dem croiser priorité sénégalais yi loolu mooy problème bi mais fekkee da ngay endetté wu pour dugg ci ay projet yi nga xam ni déjà da ngay lancer idée bi et que plusieurs années ces projets du voir le jour wax nañ ko fii yu ci bëri mën nañ ko citer terre beeg yeneen ak yeneen c'est ça la difficulté pendant ce temps les sénégalais continuent à souffrir ñoo ngi souffrir ci ay hausses permanentes yi nga xam ni ñoo ngi koy def muy am un impact sur leur qualité de vie parce que justement endetté nawu nañu dugg nañu ci ay engrenage yi nga xam ni mënuñ ci génn et tout ça on fait supporter aux Sénégalais bi may ñëw léegi dama daje kenn mu ni ma honorable assemblée nga jëm mu ni ko waxal ministre Macky Sall yi nanu bàyyi làkk tubaab bi te djublu sunu yitte yi ñoo ngi nañu amuñu xëy fajuwuñu sunu doom yi am nañu ay difficulté pour dem jangi. et pendant ce temps ñom ñongi t'ok di làkk rek terme termes yi dafa bare te technique motax je vais éviter le débat technique monsieur Or, je vais vous laisser ce débat technique tout à l'heure mais ce que je veux dire de façon très simple le que président Macky Sall na que peuple augmentation ciment augmentation mburu augmentation courant j'ai fait un débat technique sur cette question hier par rapport à l'impact bi nous au niveau des entreprises